Amis auditeurs, merci et bienvenue dans votre émission Réumi People. Suñu invité tey mooy Grand Laye Mohamed Touré acteur dans la série Idole kon tey moom la ñu am mbégte dalal sa casquette d'acteur ak leneen ak leneen loolu yëpp dinañ ko waxtaanee ci bile émission la dañu ko jox mu nuyoog ñu koy teew teewlu ñu jox d'abord Djily salaamaaleykum. salaam Mimi ñu ngi lay ziar bu baax baax di la bëgg di bëgg auditeur ak auditrice ñu dalal Grand Laye Grand nekk ci série Idole. Mm-hmm. Euh, gars yi tuddee ko Paa Nante. Mm-hmm. <laughs> moom lañu fas yéene waxtaan ak léegi léegi. d'accord Grand Laye c'est le patron de West Info mm-hmm. le groupe de presse bi def buzz dans la série Idole à l'état civil son vrai nom c'est Mohamed Touré alors monsieur Touré Grand Laye bu la gënal euh, ñu ne la salaamaaleykum dalal ak jàmm ci émission. maaleykum salaam soxna si. ci seen émission bi. yow ak sëñ Jili. ngeen dalal ma tey pour ma mën a waxtaan ak askan wi. waaw ni nga présenté noonu la Grand Laye lañ koy wax ci film bi série Idoles mais Mouhamed Touré laa tudd. maa ngi liggéeyee nag fii ci ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants. mais précisément la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants foofu laay liggéey mooy mooy suma liggéey su ma wàccee nag laay dem defi cinéma. mooy kontaan nag trop ci teeru bi ngeen ma teral l'invité bi pour ma mën a waxtaan ak askan wi jombul ñu bari bëggoon nañ xam kan mooy Grand Laye kon nag c'est le moment yéen laay déglu. alors Grand Laye comme ni mu ko waxee c'est un agent de l'État d'ailleurs sax ñu ngi ko fekk ci bërëbu liggéeykaayam interview bi fii lañ koy defee mais tey li ñu gën a intéressé mooy sa casquette d'artiste alors Grand Laye pourquoi nga préféré faire du cinéma voilà jouer dans les téléfilms. non kooku c'est venu comme ndax du euh, ci cinéma laa njëkkee. et du question que ndax dama préféré xëy na lu ma dab la. Ah mais ci publicité la commencé. mu ngi bugg yàgg nag su mu juumul euh, ça doit être dans les années 97 peut-être ay 22 ans léegi. ma dugg ci publicité. donc c'est dans les années 2005. ci laa gis benn annonce su l'ONG image et Vie. pour une formation en direction d'acteurs. Alors j'ai postulé. J'ai été. Il tout un processus de présélection, sélection. À la fin daal je faisais partie des gens retenus. ñu jox ma suma attestation. am na ñu fa toogoon ca au présidium des réalisateurs de grands acteurs par exemple Lamine Ndiaye. et tu mais on a improvisé benn scène. avec des mimiques. alors euh, ñu jox ma rôle procureur. j'ai pas épargné l'accusé quoi. je l'ai tellement massacré que il ne pas échapper à la condamnation. Mhm. Les gens ont applaudi. Bon, peut-être, il fallait le faire, il fallait oser. Mhm. J'ai reçu mon parchemin trois jours après parce que Bini Tago Connect, mon âme, c'est numéro. Trois jours après, comment on Dans mon leçon, là, je suis réalisateur, il me donne un rôle principal de rédacteur en chef qui devait envoyer Euh, son reporter de choc qui s'avère être comment s'appelle Rokhaya Niang la meilleure la grande, dame, oui. grande artiste mm -hmm. moi qui venais d'apprendre pour intégrer la maison mhm. ñu boole ma ak la euh, l'artiste confirmé. c'était quelle série. ma war a nekk son patron c'était un film documentaire de sensibilisation sur la drépanocytose. Mm -hmm. avec le soutien de la fondation Euh, éducation santé de madame Wade. et c'était vers les années. c'était avec madame Viviane Wade. je crois dans les années 2006 quoi mhm. on a tellement bien joué c'était parti. ñeneen dañuy gis woo ma après dinaa la jox sa yeneen film yoo xam ne. Mhm. c'est des films documentaires voués à l'étranger. Mhm. bon mais suma première apparition à à carrément au cinéma c'était avec euh, C'est la vie. c'est la la première la première saison. Mm-hmm. joué naa une pige. Mm-hmm. boobu mu ngi daan daw euh, ak Canal Plus je crois. à mm-hmm. plus saison daw. ok c' était avec Moussa Senab ça. maintenant c' est plus tard que Idole est venu Idole yàggul quatre ans environ c' en quelle année encore je ne sais plus 2015 lañ ciy waxtaan 2016 ñu démarré ko. Voilà, j'ai eu un rôle principal dans ce film. Et c'est ça qui a amené le fameux tollé autour de Grand Laye. D'accord. La procédure d'intégration dans ce téléfilm, comment ça s'est passé J'ai connu d'abord euh, une agence de communication et de, de marketing et de communication, Boutoudon, Étincelle. Étincelle. Alors, j'ai été retenu comme acteur pour un spot publicitaire. Nous avons tourné. Madame Feu, c'est mon jeu d'acteur ba pare y ci biir. le petit Tafa. oui oh c'est plus tard qu'on s'est connus comme amis. il avait aussi Margot dans les filles qui était dans un spot. mais je la connaissais pas parce que moom it. Euh, elle était un modèle ci euh, en publicité au niveau de cette agence. Mm-hmm. alors mais man maa fa mujjee ñëw jour boobu laa ñëw. dóor li may dóor dem sama yoon après ñu woo sept mois plus tard peut-être ne ma yaa veulent tourner un film. Mm-hmm. et ils ont besoin d'un acteur. Mm-hmm. qui doit interpréter Grand Laye. Mm-hmm. alors il faut faire le casting ma ne d'accord on fait le casting. vers la fin le gars me dit es-tu sûr de pouvoir incarner le rôle de Grand Laye. ma ne ko tu oses te poser cette question. je ne fais pas grand lay mu naan mais non ma ne ko non oh je n'en sais rien ma ne ko grand lay c'est moi. mu ne ma quelle prétention ma ne ko non je suis tellement sûr de ce que je dis. mu dugg si bureau gars bi ne ko mais foo jëlee paa bi <laughs> paa bi nee moom mooy grand lay waa ji ne ko waxoon naa la ko j'ai vu sept grand lay yu ñu ma proposé il faisait pas l'affaire. mais bi ma koy filmer muy de spot bi may dégg waxtaani chef yooyu ak ay manière ma ne kii laa doon seet. c'est comme ça que c'est venu. Ibou Guèye mhm. alors on m'a le scénario au début c'était illustré ce que vous ne savez pas mooy X. qui dessine et qui écrit sa main gauche. il avait illustré tout le film à la main donc tu as le texte tu as le scénario le synopsis quoi. Mhm. c'était intéressant j'ai accepté de jouer le rôle. et c'est parti comme ça. comme ça Djily moom daa mel ni tey ku dugg cinéma. ta première question pour <laughs> euh, waaw am na solo Ibou Guèye ba mu lay jox rôle Grand Laye bi Grand Laye dafa nekk benn gaan boo xam ne bindkat la woon wala lan la woon ci milieu cinéma bi bu mu jël jox la tur boobu noonu. tur boobu fan la jógee quoi Grand Laye mooy kan. Grand Laye euh, film bi moo di waa ji ku ñuy wax Ablaye Gaye la tudd. Ablaye Gaye. donc laay bi ñëw indi le Grand Laye. Mm-hmm. diminutif de Ablaye. Mm-hmm. alors mu nekk nag euh, un grand journaliste. Mm-hmm. ba pare di enseigner aussi le journalisme. Mm-hmm. Euh, am jabar ju bëgg àdduna. am doom fii à mm-hmm. xam nga mën na li muy def lool moom grand lay mais ci journalisme yi yor journal bi gën a mag ci réew mi. d' accord mais it nekk na waa joo xam ne ku bëgg àdduna la. ku bugg bànneexu. mu ngi ci place yu xumb yi mu ngi dóori kaas mu ngi tux ay cigares. mu ngi ànd ak bu gone yi xam nga waaw ñu màndargaal ko nag ñu ne xëj na les patrons de ñu ne noonu lañu mel ah <laughs> man de grand laay daal moom moo mel noonu waaye war xamoo si dara mhm. <laughs> alors euh, euh, mu yor këram mais malheureusement déontologique éthique ba mu daan incarne bi ne woon ci moom mhm. dem na ba ca biir politiciens yi te kenn ki ministre la xaritoog moom lool di nag ministre bu njublang parce que financement bu ñu ko jox mu am feneen fu mu ko jaarale te defu ko ca fa war a dugg maanaam c'était le ministre de la construction des routes tali yeeg yoon yi waroon jaar moo ko waroon defal alors ba mu poser première pierre bi mobilisation bu dul dakk comme ni gars yi def avec le bétail pour euh, le mm-hmm. ñu ñëw ñu inauguré affaire bi pour problème yi cooli jolli mu ne feeg naa mi weer dinaa leen jox yoon bu sotti mais rang-rang ba fa dooree woon yàgg na fa lool. Mm-hmm. léegi nag chaque fois grand laay moom buñ ko tooyalee mbuusam. Mm-hmm. mu wax ci à une ne ah euh, liggéey baa ngay avancé. tali yi kañ bu sottee nangam nangam keneen keneen donc kële ngay sàcc mu nga koy nëbbal. waaw loolu moo waral sax bañ demee ba Malick dugg si ca bureau ba gis-gisam ba mu yaakaaroon ne moo ne fii ci biir ne ci grand lay loolu newatu ñu ñu fantasiroo ñoom ñaar dëmmante xeexoo ba Malick moo enquête ministre bi boole ko inspection générale inspection général daaneel ministre bi ministre bi daanu daane laale grand laay xam nga nag ministre moom du yàgg kaso hmm. moom benn guddi la fa def ñu bokk ko mu dem waaye dañ koo wàcce garalaay moom dañ koo jagat-jagate yóbbu kaso mm-hmm. mu yàgg fa lool waaw mbir mi <laughs> noonu la fa demee ci ci ci garalaay mm-hmm. léegi nag àdduna yi dox ba mu génnee kaso mu am lu mu fa jàngate mm-hmm. mu soppeeku nag la mu defoon yëpp mu récci ko parce que ñu bari dañ daan roy ci moom ndax xam-xamam ak liggéeyam bu sell mais mu jógi seytaani dab ko ba mu dugg ci ndëgg sërëx mais ba mu ci muccee kaso ga mu toogoon amal na ko njëriñ parce que am na lu mu ca jàngate ba mu génnee dafa daal di soppeeku. parce que pour mu génn sax nga ca jàpp ba mu génnee ba pare sax maari del si waat na ñoom ñaar ba ñu juboo waat mu di ko wane ko yow mi yaa newoon ci dëgg tu vois kon journaliste noonu la war a mën a mel dafay dëggu xam lan mooy éthique ak déontologie di yee askan wi di faram fàcce muy leer te bañ leen a nax loolu mooy dëgg gën a laay nag ko looloo ko mosoon lor mm-hmm. waaw rôle boobu nga interprété woon ban idée la la jox ci la presse sénégalaise li nga koy critiqué bëri na on dit que des fois bah, une certaine partie n'est pas trop sérieuse dans ce qu'elle fait est-ce que tey jii santé nga ni seen rédaction boobu quoi qu'on puisse dire y avait du sérieux ah tey jii sentir nga ni loolu noonu est-ce que c'est présent cet aspect-là au sein de nos rédactions waaw xam nga man d'abord duma journaliste ba dugg ci seen rédaction presse d'une manière générale. la presse. Euh, suñ may faral di invité xëj na c'est sur le plateau wala yu demee noonu. <coughs> mais ñun rédaction bi ñu amoon West Info fële. gis nga d'ailleurs tous les desks authentiques ont été copiés. culture comme du vrai et du vrai. et ñoom aussi kenn du ci journaliste comme man mi grand laay aussi duma journaliste. Mm-hmm. mais c'est de bons acteurs qui ont incarné les rôles qui leur étaient confiés. alors euh, kenn ku ci ne xibaar bi nga doon wax da daan méngoo ak actualité bi. n'est-ce pas. donc ñun da doon dañ doon ànd ak actualité bi mais rédaction ba réunion rédaction ba euh, jubluwuñ ci woon lu dul joxe des leçons de vie. ku ci nekk muy euh, soit daa au niveau de. la desk euh, du desk comment dirais-je encore euh, non non. c'est pas société. société société, société Margot People. Euh, Gouch Gouja bi l'ami de Tafa. le sportif le sportif. le grand l'autre. Euh, Boydi. voilà Boydi c'était le culturel tu vois. alors tonton Sène en euh, red chef. et il était très pertinent. Mm-hmm. faut pas oublier que tonton Sène quand même. Euh, il a duré dans le théâtre mm-hmm. depuis plus de 40 ans. Mm-hmm. et actuellement il gère une grande communauté comme Grand Dakar en tant que chef de quartier. waaw moom mm-hmm. ah na ci affaire yi donc il était vraiment dans son élément. Ah il a donné beaucoup de punch quand même à la rédaction de West Info. moi je jouais au patron frimeur et bon viveur ci quoi di. Euh, promouvoir ay promotion canapé fii parce que loolu la gaa yi doxal boobu mooy yi gars yi jëfe loolu laa doon weeje ah xam naa ne day mus na maa romb mus na maa wàcc sama bureau bii mhm. di wut taxi benn 4x4 ne xiit freiné taxaw maa ngi ànd ak ñaar ci ay agent yu ñu bokkal wàcc nii mais grand laay tu n'es pas sérieux ma ne ko lu tax mu ne ma non grand laay mais su yàq suñu affaire bu yaare ma ne ko ban affaire laa yàq je suis patron de presse ma ne ko ah dama yàq Sénégal yi nekk man ma foo ne mu ne ma non mais yow xanaa journaliste nga ma ne ko déedéet. ban journal ban école nga jàngee je suis acteur j'ai incarné un patron de presse comme vous faites. kon lii ñun koy suñu dóoree bi yàq nga ko weeje ngeen ko j'ai rigolé ma ne ko ah kon li ñu wax dëgg la ah non grand yow kay bon qu'est-ce que j'en déduis c'est lui qui l'a dit ah moom moo ko wax. il était tellement impressionné parce que nee na c'était tellement pertinent ce qu'on restituait aux gens que dafa mel ni ñun loolu euh, dañ ko xam di ko dund comme ñoom nañ koy dunde te ñun dañu ne rek waaw nii la war a demee ñu ñu jëfe ko on n'a fait que restituer des scènes imaginées après ça ça ne nous a pas donné envie de constituer une rédaction de devenir journaliste je, crois que je vais devenir patron de presse si jamais ah envie sans blague mm-hmm. Et pourquoi Oui, je me suis essayé une fois parce que, tu sais, moi, j'ai été un agent du ministère du Tourisme. Mm -hmm. Et je suis trop culturel. Mm -hmm. Je suis un féru de musique, un féru de jazz. Très jeune, je suis DJ, tu vois. Mhm. Je suis président d'une fondation jazz qui, qui s'active dans le soutien aux artistes en détresse qui sont en difficulté, malades ou pas. Alors j'avais, j'avais initié une agence d'ingénierie culturelle pour voir de manière tentaculaire, parce que la culture, elle est immense. Donc, euh, je l'ai intitulé Impact. Ça m'est venu dans la tête, que dois-je faire Je dois impulser. Impulser quoi L'art, la culture et le tourisme. Et je l'ai intitulé Impact. IM, ça veut dire impulsion. P pour la promotion de l'art, de la culture et du tourisme. Ça me donne impact. Très original. Très original. Mm -hmm. Ça, c'est l'acronyme, quoi. Mais je veux que le contenu ait de l'impact. Mm -hmm. Donc, ce qui revient au mot du vocabulaire, l'impact du coup, l'impact de la balle. Vous voyez mm -hmm. que mon dal, l'âge du bleu. Donc, c'est là. punchline ci seen jargon bu bees bi donc euh, loolu ci kaw loolu impact annonce amoon na ci wala impact édition pour ma permettre di bind loolu joué gu ma sax film bi parce que impact bi mooy créé am na vingt ans c' en 2000 le numéro c' est le 2000 B566 mm. je l'ai en tête ok donc yooyu yëpp sóoroon naa ko ci sànq rek maa ngi ciy waxtaan ak benn booy ma di ko wax impact événementiel impact édition impact patata lu la neex ngay def si biir. <laughs> loolu est-ce que duma xaar bu retraité fii ma nekk. fii la dese pour naa dañ ma defal contrat man weesu naa 60 ans. Ah oh, loolu laay xaw ni loolu mooy loolooy nag gone yi ñu may bëgg laa. waaw ah si je encore 50 ans. Vous êtes aussi vieux que ça Allahu akbar j'en ai booy. jeune. macha allah oui Djily. waaw mais grand laay li ma jaaxal. Euh, grand laay bi nekk ci idole. ak grand laay bi ci mbedd bi. buy communiquer benn la buy doxal ay gestam ak buy wax ak manière am yëpp benn la. doxalin bi ni nga mel ak booy ci biir euh, série bi. sibiti grand laay <laughs> ñoo si tuuti. waaw mais. xëy na dañ ma solal mbubbu euh, foofu patron de presse ñu ne bu kàccoor mm-hmm. mais journaliste dëggantaan mm-hmm. dafa war a xereñ mm-hmm. pour mu xereñ lu ne xaj na ca kàccoor géeg parce que fu ne nga war a dugg mais fenn fu ne am na noo fay dugge ak euh, euh, ban taxawaay nga fay war a mën a am mais dañoo dox suñu jeunesse dañ dox àdduna liggéey dans l' administration moi j'ai été embauché une première fois en 1978 c' était à Lonkat à Diourbel mm -hmm. office national de coopération et d' assistance au développement ONCAD Laye Wade mii moo ñëw mm-hmm. moom la def arme sabote ko daal ci kaw Senghor ba li daane Senghor loolu ca la bokk mm-hmm. ba Senghor daaw mm-hmm. de 40 de 78 à nos jours ça fait au moins 78. ba léegi ñaata ak la. ba léegi ay poussière. donc tu vois. alors capital expérience boobu dafa bari. Mm-hmm. jaar ci ay ministère du tourisme jaar ci guidage de tourisme jaar ci directeur commercial de agent de voyage. Mm-hmm. directeur d' école de formation en restauration hôtellerie pour les et tout. Mm-hmm. donc da xam lu bari. tu mais étiquette bi ngay takk ci ci série bi est-ce que duñ la ko takkal si biti boo génnee ñu lay xool jàpp ni paa bu bëgg jigéen la wala paa bu. Euh, am na ñu comprendre ne que ca film ba la muy joué euh, interprétation de personnage la. Mm-hmm. buñ ma gisee ci biti xëy na nañuy dajeeg man anam ba may nekkee. dina leen jox ñu jox ma cëru kilifa. Mm-hmm. tonton grand laay wala père grand lay na nga def ak yar ak teggin xëy na parfois ñu fekk ma ci beneen comportement bu xaw a décontracté mm-hmm. ñu xaw ma ñemee gis ne que ca film ba la ñu cokkaase ba loolu grand laay ana mm-hmm. demee noonu ok tu xam nañ ne lële ab liggéey la woon di wane ma màndargaal benn doom xeetu doomu aadama nu mu bindoo mm-hmm. mais man de nii nga ma gisee nii loolu laa mel waaw dañoo xamul ne interprétation la mm-hmm. mais man bi ngeen ma gisee ab taalibe ngeen njëkk a gis ak lu ma mën a xuutal xuutal rek soo chapeau mm-hmm. costume yëpp taalibe gi moo fi nekk mm-hmm. loolu laa xam njaareem laa sosoo falaa laa juddoo fa màggee jàng foofu jàng si Ndakaaru fii daan ko def handball moi j'étais grand handballeur alors keroog bi may dajeek euh, le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye dans la loge de Carlou di pour qui j'ai fait son clip d'anniversaire dafa dugg si sama i kii de sama mbokk bawal bawal la ba ma ko ba ngay jàng lycée technique euh, Cheikh Ahmed Bamba ma ne c'était un grand footballeur ma ne lui aussi c'était un grand handballeur mm-hmm. on a beaucoup causé voilà màggee jóge fa soog a ñëw Dakar mm-hmm. Dakar nag maa fi boo yàgg 82 mm-hmm. ba léegi maa ngi fi liggéey bu ne def naa ko fi nag ba fii fii laa mujjee bay soog a dugg ci cinéma bi mais cinéma bi ni ma la ko waxee publicité mooy mooy bunta bi. mu demee noonu ah, léegi nag maa ngi joué ci yeneen film à l'étranger aussi. Mm-hmm. très bien amis auditeurs je rappelle que nous sommes avec Grand Laye acteur dans la série Idole. Euh, pourquoi on a comme l'impression que tu es un artiste qui aime trop interpréter euh, un bureaucrate qui aime trop être derrière les bureaux pourquoi c'est un choix tu l'exiges ou bien. wóor na yàlla exiger wu ma ko. réalisateur bi moom moo am son synopsis son. film ou moo xam dans sa tête. c'est lui qui s'imagine yan acteur ñu war a interpréter tel ou tel man suñ ma woowee dañ ma naan rôle bi lañ soxla. te loolu aussi lañ may defal examen. mooy les tests ça votre apparence votre façon de yàlla na ko yàlla yërëm il est décédé deux mois. Oui. c'était le 11 octobre dernier. Mm-hmm. yàggul mm -hmm. bi il et puis période boobu pour nous payer des habits il y avait un magazine La Redoute et qui venait de la France mm-hmm. moo ëpp euh, annuaire téléphonique mm-hmm. c'est un répertoire de tout ce qui est vendu mm-hmm. et fabriqué en France moom ñu daan woon nag di xool ay yére mu dañu choisir ay pull à col comme bi mu sol nii xam façon ñu demee noonu ay euh, ci ngay xam euh, les tissus dormay tergaal ral tergaal des tàtt ci jamono yooyu nga hmm, lay ainsi de suite on commandé daal la yéeg yëpp ca ba xale di jàng école dañ commencé habillé noonu da nga koy màggaale mm-hmm. ma mère aussi commerçante elle vendait de l'habillement mm-hmm. quand elle venait de voyage man maa daan solu ko man a yaa dem jaay mm-hmm. alors j'y suis habitué loolu moo ko indi mais nit ku baax dafa war aussi sol yëre yu yiw xëy na boo nekkee sa kër nag bu la neexee ñu lalala sag romb jaan fee du xam nga romb jaan yoo xamoo romb jaan yoo xamoo ko lan mooy romb jaan ak basang la mooy ga basang boobu ñu omb ci boor yi mm. c'est pour que boobu ca kaw ga ca kaw ga la amoon mm. jaan bi du ñëwee du mën a yéeg mm-hmm. moo tax ñëwee ne romb jaar mm-hmm. da daan aar bu la neexee soo wàccee mën ngaa simi say palto say karawaat teg fee sol sa caaye nax sa goro. ak sa benn faaru mbaam. di taxawal sa benn njaganaay soo wëndi ca. Mm. bu ñu neexee parce que foofu la ñu jógee te loolu moo neex. liberté boobu. Mm. mais boo dem ci nit ñi nag wax dëgg yàlla da nga war a solo yiw. finalement moi c'est devenu une moo taxit ci bureau yi rek lañ yóbbu. bureau yi parce que loolu laa xam aussi. Mm-hmm. je ne suis pas un technicien. ok alors Grand Laye on sent aussi on voit aussi que vous êtes un artiste qui aime être en contact avec les femmes. dans la vraie vie vous êtes comme ça. dans la parce que yéen a ngay bëgg a euh, photographier lenn ca idole muy grand laay ku bëgg jigéen la pourtant jigéen ñi bañuñ ko ma loolu ma ca jaaxal xëy na ay kopparam lañ bëggoon waaye moom xëy na moom jongama yee ko ci safoon. Ah, bari na ci xeetu patron de presse yi de bari nañu soxna lool mbaa ñuy takk di wàcc rek. jabaru diw la woon jabaru diw la am na ñu ma xam wax dëgg yàlla. waaw la waaye dama sañu tudd seen tur fii ne kon bu subaa ñu defal ma citation à comparaître <laughs> pour diffamation <laughs> ton entourage par exemple votre épouse euh, elle a vécu ça comment mais comme si comme de rien n'était parce que moom li muy gis may interprété ci télévision bi mais à la maison c'est presque comme ça que je vis relax waa ci jaaxal ci canapé bi et fais-moi un café non pourquoi jalouse xam na ma. Mm-hmm. on se connaît très bien. Mm-hmm. man dama la yëgal ne la ma man mi interprété Grand Laye waxuma Grand Laye bi de man sama jëmu boobu. Mm-hmm. lu waay waroon def ca ba ngay gone rek. def naa ko ba doyal ca ba pare ca. même les délices défendus. bu ci laal naa ca ba xam lu ca ne da nga dañ gumpa kon lu may jaaxal ci àdduna bari doomu aadama bu taxaw si kanam boo ko xoolee dangay xam kii. nu mu ñëwee fu mu toll wala lu ne ci moom. bu waxee nga xam waa wax ji lu mu wund lan la. kon loolu macha allah. kon ba may ndaw dugg naa ci baatu nuy fekk naa baal naa organiser naa manager naa ay groupe de musique damaa jëm mag nag muy bi. bu mu duggee ci bërëb troisième âge. damay dem ci foofe le le vigile ñëw ne ma eh ñëwal ci rang bi yow. ma ne ko waaye yow yaa yaara di ko ba dee mu ne ma waaye man ngaa yaa yaara di ko ma ne ko eh doom man du ma sa morom. waaw ñëw ci rang ma ne ko du fii laa bokk fii paa yi la ma ko ci ñoom sa ma jox ko ma baal ma wax ma amoo teggi ma naan baax ki bi kat pour bii façon la mooy ñaam 60 waaw bu fekkee nag foofu la d'accord bu fekkee du foofu nga ñëw ci rang bi waaye ñëw ñëwal ci rang bi man est-ce que sama taaw magu mm-hmm. c'est ça donc aussi liggéey da nga koy jox ko comme moom un accueil. Il doit être très chaleureux, respectueux, bien que rigoureux pour filtrer. te ko ci yoon. il faut il faut éviter le désordre. donc mais yow yaay nekk ku ak jub parce que ay nit ñoo ñëw di wut si foofu nga di leen dalal di leen di gindi. kon da nga war a ànd ak daal ànd ak yar ak teggin. mais ñàkk yar bi ne ci réew mi fi mu ñun moo ñu tardeel. ok tey jii Grand est-ce que euh, c'était facile. de jouer avec des jeunes en tant que personne boo xamante ni tey di yegg na fenn fii ci wàllu at. mais un scénario c'est c'est c'est tout un ensemble. Mm-hmm. ay góor a ngi ci ay jigéen a ngi ci. Mm-hmm. ay mag a ngi ci ay ndaw a ngi ci gis ngeen Bass Diakhaté ci biir mu interpré mu interprété charlatan. Mm-hmm. un faux un faux marabout un truand. du fi jeex mooy dóorkat yi ah, kooku mag la. alors. ak euh, paa bu décédé bi. vieux Ba. Mm-hmm. bi décédé. Mm-hmm. tonton Sène. Mm-hmm. ak euh, Derneville le directeur de cabinet de l'ancien ministre qui est devenu ministre après mais ay mag. accrochage musul am seen musul am on était mais c'est une belle famille euh, idole c'est autre chose dans les coulisses ku ci nekk jox nga sa morom cër ba mu yeyoo. tonton Grand Laye papa Grand Laye lu ne laay dégg c'est des câlins c'est des bijoux mais par liggéey naa idol nag ba mu matu at parfois man dajeeg benn fan su ma ma jox ma numéro Margot xaw ma ko ne dama ko ko bañ a jox. ma bu ma ne xaw ma ko parce que maam Cheikh Ibrahima Fall man ñaareem laa juddoo maa ngi màggee diggante kër Cheikh Ibrahima Fall ak kër gu mag Serigne Assane Fall naaru Kawsar dama fa daan dem ca marché kàdd ga su ma fa bàyyi ko dama daan taxaw buntu kër di xool Baye Fall yi ñu yenu ndog yi jëm kër gu mag di ko yóbbu kër sëñ Moustapha Bassirou man Serigne Mor May fii Cissé moo ma yar dañuy sonn rek mën a baal baal laa en dehors de film yi ngeen di bokk artistes yi nekk foofu comme yow complicité ak sa histoire ak Margot ak Tata Ressa et tout est-ce que di ngeen di dem leen te vous avez une certaine relation ku ci xewle ku ci xewle boo dañ am benn groupe whatsapp fa buumu jokkoo bi nekk lu xew muy événement dañ koy foo lañ koy yéege ba keroog bañ waree ànd dem mai gi deret centre national transfusion sanguine fa lañ ko wax kenn ku ne def sa vidéo invité say nit daal di koy tas ci say statut après ñu daje ñun noonu lañ mel idole moo ñu boole mais euh, euh, euh, xoolal ku mel ni Malick maa moom ni ñuy dampante ci biir affaire bi da nga naan sax dina ma dóor parce que je l'injure je je le fais n'importe quoi mais moom moo ma naan père yokkal pression bi père tey ni nga ma songee dafa loo quoi da ngay dal ci man bu baax est-ce que tu vois pour bugg mu baax may ñibbi moo may déposé donc euh, euh, euh, quand on est sur le plateau mais c'est autre chose on est quelqu'un d'autre on est dans la peau du personnage que l'on incarne et oui et carrément. Mm-hmm. le patron il est chiant. ban séquence moo la gën a marqué ci saison yëpp nag Binta dee. oui bi Binta dee d'accord ak na mu dee tout ça metti woon na. Mm-hmm. pour un ci. qui perd sa fille, qu'il aimait bien. Et c'était aller-retour parce que nous nous aimions très bien, Binta et moi. Bon, vous demandez de nous mettre lol, lol, Mais tu parles de séquence, vous me marqué. Mm-hmm. D'accord. Hum, on m'a fait interpréter. Tu te rappelles de Fifi Oui. La stagiaire, ba ma jëlee woon ca baar ba. mu ñëw di ma kii ma xool ko rek ma ne. xool ko xoolaat ko am lu lu nu wax ma fexe ba mu ñëw ca barab ba waaye Margo du bàyyi kenn ci ci jàmbam jotoon ko amer de ko kër ga jaxasoo euh, am na benn scène je je demandais euh, la monnaie de ma pièce en quelque sorte parce que dama ko fekk comme serveuse. Mm-hmm. moo mën a daan na jàng communication da koo bàyyi lu tax yaayama feebar ak rak yi seen seen jàng yi fa mu solo xaalis mu dem amul leneen lu dul baar met ma ne ko yow mii nga jàng communication ñëwal fële sax ñu xool mu ñëw ay stagiaire la doore ñu boole ko Mali te tas truc après léegi nag xam nga ne gars yi bu ñu la dugalee foofu dañu bëgg a ñam mm-hmm. ñu ànd reere may jaay ko viis est-ce que du ma jël néeg fii nga bësal ma sama fii metti mu ñëw ma ma saay saayi ko mhm. yegg ci moom wax bi da koy wax nu mu nu mu tudd ci wolof ma saay saayi ko àgg ci moom parce que moom itam am na yaakaar ne ah war na ko mën a séq ak man ndax fi ma ko fi ma ko jëlee ak fi ma ko indi mhm. mais eh, action boobu mu ko joué ba pare moom son jeu moo ma daaneel mhm. xam nga dañuy simuler ci parfois mais dara bu weex bi mu ngi ko def ba ci kaw ween yi quand même mu bu ween yi mais mu ngi ci ngoy dara baa ngi taq deret maanaam mooy liñ ciy taxal muy niroog deret mm-hmm. mu di ko xool di di jooy mm-hmm. di naan j'ai perdu ce de plus précieux en moi mm-hmm. pourquoi pourquoi loo nga ñuy toq mais intensité bi mu ko defee dans ses émotions ça m'a ébranlé dafa mel ni dëgg la woon bien que yëkkati naa yu naa wala sent mille tegal ko yëkkati dix mille après nga jël un quatre quatre un taxi. après je me suis senti trop petit. dama génn ci couloir bi may ko mu sol. ba pare bi ñuy génn nag di war a escalier mais pour moi j'étais toujours dans ce nuage d'avoir fait mal. yee léegi dama ko doon téye pour fu mu di xool fu muy teg tànkam. pour la sécuriser. parce que je me devais de la protéger. après la violenté tu vois jour boobu laa xaw a yëg ne tey duma acteur bi quoi <laughs> waaw parce que waroon naa gën a bandi wala gën a soxor wala des tas de trucs mais j'ai immédiatement regretté li ma def laal nag c'est peut-être c'est Mohamed Touré waaye parce que man jigéen ñi sumay xarit lañu man bariwuma xarit bu góor jigéen ñooy suma xarit ndax suma yaay moo suma xarit suma yaay moo ma ne dama nekk xale bu góor bari xarit jigéen lool. Mm. ñu di xuloo di xeex. waaw mooy handball su su ma joué may téye saag ba dégg ma ma dégg cooki bi fii kër. Mm-hmm. suñuy baali su ma demee am ñeneen ñu dab ñenn ñi sax damay tëb palanteer bi parce que ñu ma xaar ci buntu kër ga bon. dama ñëw ne ko su yaay man par kii daf ma solo su ma veste bi la yóotu ba dama daw bàyyee ko ko. Mm-hmm. dem wuti beneen t bu ma sol quoi. mu ne ma lan la jigéen leen sonal ma ne ko ma rek mu daggal ma saaga ne ma yaa fuuy yow doo dara yow lay topp ngay tiitu góor toll na nu ko neex jigéen tëkku am na lu bari lu dul jeex mënul am ci yéen ñoom ñu xëccoo ngir yow nga koy tiitaroo dama lay sant lenn dee leen suturaal dee leen yërëm te di leen teral ñett yooyu denk naa la ko si jigéen j'ai essayé d'appliquer la leçon. il y a rien de plus intéressant que ça. man suma xarit ba jigéen <laughs> alors Grand Light ça déjà des années. vous travaillez avec euh, la maison de production d'Yvonne Prod. ça se passe comment la relation est-ce que tout est la relation professionnelle se passe pas de souci. y a pas de souci s'il y avait de souci ça aurait <laughs> fait une casse depuis longtemps. vous gagnez bien. ça je ne saurais vous le je parle pas d'argent. ah jamais xaalis bëggul coow duma ci wax. ndax dinaa fa am lu bare wala dinaa fa am lu yéem mbaa lu yées mbaa lu néew. loolu du ko tudd de. comme man waxtaan maak ñoom waxtaan nañu bu ñu déggoo ci fànn. su liggéey doore ñu mën a gis action yi acteurs yi ñoo koy mëne mm-hmm. mais c'est parce que ci njëlbeen nga déggoo am na fa. Mm-hmm. dëgg kële moo soxla moo lay sant liggéey moo lay fay boo demee ba jokk ci liggéey boobu c'est parce que d'accord ngeen ca payoor ga mm-hmm. bari na wala néew na nag loolu moom man duma ca wax. waaw baax na <laughs> Grand Laye ñu bëri tam gis nañ ni idol bi euh, idole saison bi euh, personnage nouveau yi ñëw dañu kase rythme bi ñu bëri sax gis nañ ni n'avaient pas leur place là-bas bonne appréciation ces gens-là ils ont tort ils ont raison euh, commentaire. bon mënuma juger seen appréciation parce que ñoom ñooy seetaan lañ cay yëkk ñoo ko xam lañ cay wut ñoo ko xam am nañ ko ci am amu ko ci la leen ñoroon ca départ ba ba tax ñu bàyyi xel idole di ko seetaan di ko topp ba léegi ñu ne mbir mi dafa jàdd feneen aussi ñoom ñi toog di seetaan ñoo koy yëkk mhm. li xale naan mbaa yaa ngi koy yëkk ñoom ñooy yëg mbir mi mhm. ñun euh, ay soldat lañ rek jóg leen dem guerre ñu dem guerre yi maanaam je peux dire que xam nga farine buñ tooyal. Mm-hmm. bu la neexee def ci mburu bu la neexee def ci kamp bu la neexee def ci beñe mm-hmm. ñun matière boobu lañu dañ ñu naan lii laa ko buggee lii laa bugg nga defal ko ko mm-hmm. mais day fekk nag nga mën a ko moo waral nga laaj ma question boobu nga ma laaj sànq ndax damaa feebaroon am déet damaa incarné feebar boobu maa ngi ne cooc <laughs> yaa ngi dégg ok mais euh, man mënuma la ci wax dara parce que duma réalisateur. d'accord. réalisateur bi moo xam le fil conducteur de son histoire. Mm-hmm. ak fu mu koy jàdd ak nu mu koy safaleeg ak fu mu jëm. Mm-hmm. ak fu mu yem. ñun euh, on nous envoie un texte on le lit on se l'approprie. Mm-hmm. nga dajeeg sa interlocuteur yéen a war a jouer la séquence. ok. jàngoon na ko nga jàng ko. Mm. vous faites euh, une mécanique. Mm. après ngeen teg fële fu mm. vous tournez de première fois c'est bon on va. dóor boobu mu jàll ñeneen yéeg. c'est une chaîne de tournage. mais gisoo ni niveau bi dafa commencé par. parce que euh, idole niveau bi mu amoon surtout saison bi mujj bi dumoon na gars yi mu fekkoon yëpp yenn série yi fi nekkoon yëpp idole moo leen ëppoon niveau. mais saison bi nii moom niveau bi dafa wàcc trop. bàyyi ngeen ci xel loolu la gaa yi wax loolu nag dama leen di sant man bu ngeen mënoon jege ji Ibou Guèye le réalisateur la maison de production moom moo yor fil conducteur bi euh, ñun ay robot lañu rek yu ñuy manipuler xëy na boobu dina leen wax carrément mhm. les tenants et les aboutissants ak dégg naa yow Ibou Guèye yéenay bind ko si ay nit <laughs> sama blague no de blagues yéen da ngeen di font. bëri sax jàpp nañ ne yaa ko bind. allahu akbar. Abdoulaye Gaye moo bindoon livre déontologie ak éthique. Mm. ci biir film ba c'était la la fiction. mais man du ma bind kat fii ngeen ma fekk may liggéey. fii mm. je suis conseiller en communication dans cette mm. direction. je suis pas écrivain. bu bëri jàpp nañ ne sax yaa moom ngi doon. allahu akbar ayoo non da nga bëgg wax loolu. dèjà man li ma wax ni mbedd mi laa fi nekk. man maa moom ngi doon. ñu bëri loolu lañ jàpp. ñun xam nañ ni Ibou Guèye la mais par rapport ak ñi ngay toogal ñu koy wax. façon mm-hmm. wax bu ne di ko ci dégg. mais léegi man maa leen di poser question lu waral loolu. fii ñooy poser question. d' accord naa yéen a poser te li nga fës. waaw mais mais ma ci fës. Mm-hmm. damaa war a fës. ak Ablaye Guèye bi si kii bi noonu gars yi jàpp ni yow la. Chérif Mal da cee fësoon. Mm-hmm. nekk vrai doomu ministre. est-ce que doomu ministre la neewu ko. waaw d' accord. du dëgg. maam Victor. du dëgg musul nekk jabaru paa bi xoolal ni mu doon seey ak doomu jiit leen nangam nangam c'est une grande actrice mm-hmm. Raïcha suma jabar mm-hmm. c'est la troisième fois ñuy ñuy joué jëkkër jabar kon xamante nanu dafay ratax ci mm-hmm. vois elle l'incarne très bien d'accord grand lay oui. grand lay d'accord léegi faut qu'on y aille est-ce que c'est c'est difficile d'être euh, un agent de l'État en même temps acteur euh, comment est-ce que vous arrivez à allier les deux ça peut être difficile. Mais euh, nous sommes dans un pays de dialogue et d'arrangement. de Sénégal la waxtaan bu déggoo. soxla nañ ma pour ma liggéeyal leen. te njël benn woon naa leen fu may liggéeyee. te ma ne quel que soit liggéey bu may mën a am boobu moo jiitu te moo ma gënal. mooy sama sécurité. mooy fi may liggéey nii ci ministère bi donc. ma leen bala ngeen di mën a jot ci man ma liggéey ba wàcc. mooy bu 5 heures weesoo. parfois xëy na ma teel a pare boori 4 heures xëy na mën maa rocceeku dem. xëy na du grave mais du toujours lay doon. mais bu fekk. du ma mën a dem te wax nañ ko ma ak ñoom non loolu loolu loolu ku ciy liggéey ak man dama la koy wax. Mm-hmm. parfois dañuy soxla pour ñu déplacer de Dakar. en un autre lieu mhm. pour 4-5 jours. Là, je demande une autorisation de m'absenter auprès de mon directeur qui me l'accorde. Mhm. dama ko wax fu mu jëm parce que wax naa ko li may liggéey sa femme mooy suma premier fan. Mhm. mooy ñëw naan ko mais yow doo directeur grand laay mooy directeur. il day ñëw naa ma mais yow yaa tax suma jabar yi ma fonto tu vois c'est rigolo. mais bu ne tel ma je me lève monsieur le directeur comment vous allez. mu jox ma ca Salim le grand laay la may wooyee fàtte na sax suma léegi mais. wax naa leen ci njëlbeen na leen su ma wàccee suma ma liggéey mu 18 heures mun naa ñëw tournage damay dem ba une heure du matin soo ñu bis ma samedi ils me prennent à 9 heures ou à mm-hmm. dimanche nag du ma liggéeyal kenn maamu sama damay noppi mm-hmm. sauf quatre forces majeures mm-hmm. mais ca départ ba ngeen di déggoo ci naka la war a demee su fekkee mënu nañ ma nangu loolu xayrun suñ ko mënul nañ wuti beneen grand laay. Ah mais grand laay kon temps bi nu toogee gis ñu la woon idol côté fin saison bi weesu est-ce que nekkul kon loolu la woon problème yooyu la. te si demoon nañ ba gisatul la woon benn temps bu yàgg bi ci dernier épisode bi après lan la gisaat nga ñëw benn trente secondes. ñu ne grand laay dafa feebar. waaw mais dama feebar ba pare new moom sax Dakar. boobu dëggantaan da nga feebaroon wala. da nga j'étais malade de Dakar. Mhm. boobu sax liggéeyu ma dafa tombé ko repos médical am naa ko ba pare fekk njooma congé. su ma directeur ma ne mais allo monsieur Grand la daal ma ne ko daal mu ne ma temps yi daal tu es fatigué il faut prendre des congés. Mm-hmm. jëloo ko sa congé ma ne ko jëloon naa 15 jours mu des 15 jours mu ne ma je te donne 3 ma ko ma mm-hmm. jours su ma yaram soof ma dem si docteur. Mm-hmm. mu xool ma na ma va faire un bilan ma ñëw suma tension yéeg 24. il fallait me reposer. damaa génn ndakaaru ak coow lañ di dem loolu moo taxoon nekkatuma fi. ça s'explique. xam nga nit ñi ñoom. Mm-hmm. dañoo maanduwut. Mm-hmm. c'est ça waaw dañuy dégg teel na damm na. dans la série tam vous aspiriez à être président dans la vraie vie tey jii boo nekkoon président quelle serait votre plus grande réalisation. réalisation mënu nekk une seule. dafay war a mën a bari. Mm-hmm. ce serait quoi la ban moom ki doon tenir à cœur. ñu xam nga dafa war a am soubassement am base xam nga lu tax <laughs> non. question mooy loolu c'est une question trop pertinente. Mm-hmm. mais dafa am yu ko jiitu. Mm-hmm. parce que pour nga am objectif wala loo war a construire wala demee noonu mun naa nekk. mais ossature ba ak base ba dafa war a taxaw ba pare loolu moom mooy dëgër. Mm-hmm. askan wi fi mu ne nii. Hmm? Mm-hmm. man bu ma fal woon askan wi laay waxal ñu delloo si seen xel ci melokaan ak nekkin ak modu doxalin. Mm-hmm. delloo si yar ak teggin. dal am yëg-yëg ci doomu aadama. xam lan mooy valeuru sénégalais lan la ñu sunu maam yi bàyyee la woon. ak tarix yi ñuy woote ñi ko jiite woon ci lan lañ doon xëcc taalibe yi. du xëccoo du reyante parce que man damay wax ne foofu li tax man fu ma ci dem damay bokk islaam bi moo leen tax a jóg muy diine ci mooy yàlla ci donc moo fa nekk mais comme garab laa ko jëlee tarixa yi pour man ay banqaas la. Hmm. ñoom ñëpp ci garab gi lañ sax. kon c'est la même famille fu ma ci dem rek foogoon naa ne mooy fa ci des c'est la même chose. Hmm. aw ma ki si ki sàkk. moo tax soo ma laajee sax yow ban tarixa nga bokk ma ne man Baye Fall la. Hmm. ça fait rire les gens. bañ a tënk sa bopp. Ah, yaa ngi dégg bu loolu weesoo nag nga toppatoo euh, richesse koom-koom. koom-koom bu amee kenn ku nekk di nga mën a féex di nga mën a xejj mais kaka yelloo moo di ka gëstu ka jàng ka am xam-xam am métier pour war a mun a liggéey souvent dañ naan xale liggéey nanga ma ko xale yi dañoo jàngut école ba pare itam jànguñ métier sa amul métier doo mën a liggéey njub la ngay mujj di def te kooku yoon da koy tere dafay metti te way jur yi loolu ñu ne yaa ngi dem ci ci gaal yi man ba may xale bu góor ba léegi suma ma copain yu bari émigré nañu nekk naa directeur commercial d'agent de voyage jàppale ñu bari ñu dem boobu awma passeport parce que gi étranger laa gisul Sénégal lu waay di wër mu ngi fii léegi ñan ñoo fàq seenu réew ñoo fii ci Sénégal xool ni mu baree xool pël fute yi lu fiy xéewal ñoo ko yor. booy bu ñu def job boobu pour pourquoi te buñ demee dëkku jaamu ñu di ko def. dafa jar ñuy jéngu mais 3 millions bi ngay am di ko jox le passeur de tactique soo ko investir fii te yàkkamti woo. en 2 ans 3 ans mais affaire bi day focc mu nekk xaalis bari. mais ma loolu laa mënul comprendre maire yi leen di buub aussi mais c' est pas la peine. sa ci dem na indi na lii indi na oto takk na jabar na mais c' est la nga xam lu fa nekkee. soit mu ngay jaay drogue. soit mu ngi nekk faru góor jigéen. wala mu mu nekk un tueur à gage parce que bandi la ñuy doon dañu bugg dund bu am sinon ñu galéré def nag su dul noonu sàcc ñu teg leen ci jàll bi mais ana lu ko jar man boobu maa ngi toog fii dew ma fenn léegi su ma demoon du ngeen am le grand laay. <laughs> d' accord damay invité ñu defar suñu réew. mu jëm kanam. pensez-vous qu'un jour un grand homme de médias pourrait diriger ce pays c'est possible. mais maa ngi nii. mais sa waa xam nga tax suma xel nekk ci. Parcelles Assainies gële ma dëkk. saa yi mu rombee xale yu góor dañuy kaas. per yaa ñu tooñ quoi ñun bi nga incarné candidat présidentiel ci film bi dañu ne ah dañ foogoon dëgg la ma ne ko yéen ndax seen bopp. loolu film rek la woon. mais per dañ foogoon ne da ngay dem élection lu tax demuloo parce que affaire yi que ma ne ko yéen bu ngeen ko gëmoon. yéen moo waroon seet si. père da ngay samp ñu jàppale la ba mu wóor ma ne. yéen gisuma benn fans club gisuma dara. Mm-hmm. kon fan laa koy teg. maa koy taxawal. yaa man maa koy taxawal. boobu taxawalee ñu yaakaar. <laughs> quel est le plus grand regret de Grand Laye. ci ban anam. dans la vie de tous les jours de tout ce que tu as eu à vivre tey jii am nga looy réccu ci sa life bu dee am na lan dafa am benn bu ma bu ma di ma topp ba léegi. ma mm-hmm. rus ci lool ci sama biir xol mu metti ma lool may réccu. Mm-hmm. dama ànd ak suma jeune frère ñu ngi dox boori port jëm terminus Leclerc di war a jëli bus. Mm-hmm. bus bi départ ñuy daw. am kuy daw ñu daje. moi je l'ai pas évité. on s'est bousculé ou je l'ai bousculé il est tombé mu daanu ma gëstu xool ko pare waññeeku ma pour yëkkati ko damaa daw dàq ji bus bi bi bus bi pare su xool ni rës ma tiit ma ragal suma booy bi ma mais grand kii da ma ne ko waa loolu ba léegi day résonné suma bopp bi. fu mu dama koy tuub suma biir xool lu leer laa lay barke maam Cheikh Fall. Mm-hmm. affaire boobu marqué te li ma lay wax. yàgg na. vingt cinq ou trente ans. Wow. mais jugul ci suma bopp bi. waaw loolu parce que jaay doole baaxul ko te boobu fu naa. am naa doole amoon xaalis. non du question xaalis. amoon bu góor laa am. doole taxaw doole. am fit. am fulaak fayda. ragaluma dara suuf tooñ. mais parfois du ma baale damay defante ba mu baax te un grand bagarreur Jurbel boo fa àggee ñu ne gars la tu vois. mën na dëgg fii kooku suma garde corps la kooku fecc noonu dama ko doon defal un tournoi chaque année j'organise son tournoi. gis nga ñun waa Idole ñoo ko jàppale woon. foofu quoi il est champion d'Afrique deux les deux années consécutives il s'appelle Malick Dia. daaw il a pris au Mali ren au Burkina il est très bon. li ñu nettali noonu moom nga gën a regretter sax loolu lu ma lu ma gën a regretter la. quel est le plus grand projet de Grand Laye jamono yi lan nga bëgg a réaliser et qui tient à cœur un grand projet. <laughs> un grand projet. Mm-hmm. peut-être de grands projets xanaa dañ koy def mu nekk holding. <laughs> pourquoi pas ça parce que ça doit être tentaculaire dafa war am ay banqaas ñu bari mun cee war a mooy war ci mun jàpp du dara lu dul créer euh, une une structure d'industrie culturelle mm-hmm. promouvoir davantage la culture nationale ba mu nekk euh, source d'emploi et de revenus pour, pour la jeunesse mm-hmm. euh, li ma gën a amer fi mu ne ci grand laa gën ma soof mooy koo ci dajal muy góor muy jigéen mu ne la dama bëgg a jouer idole laaj la na la da nga daan jouer nga ne ma déedéet lan nga bëgg a jouer ah lu ngeen ma jox rek. lu tax nga bëgg a jouer non daf maa neex rek ma ne ko mais non lii métier la xanaa gisoo ni ñu koy defee. ngeen ñi bëgg a siiw waaw no bëgg a siiw gi duñ te wax la ko. dañuy dañuy jekk nag yaakaar ne bu ñu jekkee rek war naa mën a dem. Mm-hmm. ma ne ko noo loolu de. affaire bi da nga koy mun mais man maa ngi leen man kii jul nit ñi di tànn. moo ma science mu tànn ma. am lu ma sant ma koy jëfe moom mu yëfi te man maa jël nit ñi. mais je pense que dama koy wax toujours keroog sax dégg naa waa gouvernement bi di ci cof ma que vous mm. ko nañ ko def. Mm. gis nga le développement de l'industrie cinématographique. mën na nekk bunt pour la jeunesse qui chôme actuellement muy góor mu jigéen jam ñaaju bëri na mu yaatoo dañu war a jël xawma ñaata dizaine d'hectares def ko la cité du cinéma sénégalais fa institut bu mag buy jàngale tous les métiers du cinéma ba même le bagage yi sax dañ ko war a jàngal comment il doit se comporter pour gérer les bagages du cinéma métier yëpp dañ ko cee jàngalaate. mais mu am ay studio yu ñuy enregistré. Mm. am aussi ay salle de diffusion. Mm. pour yenn kii festival de cinéma yi. Mm. ak yeneen salle de diffusion yoo xam ne da ngay ñëw fay lu cher. est-ce que xalaat nga waxtaan ci ak kilifa yi ñànk wàllu aada cosaan. Eh, jege nga waaw mais tu sais kiy jël décision fii ci réew mi c'est le président Macky Sall. da ngay jéem a wax ak ministre de la culture yi dem affecté ñu dem il s'approprie le projet mm-hmm. te mbir mi xalaat bi xel ma mu meññee mm-hmm. kooku moom moo gën a gis photographie bi pour naka la war a demee mm-hmm. et je suis pas profane la chose loolu su amee xale yi dinañ jàng métier mi mën ko mais damay dellu tuuti gannaaw Amérique nan lañ ko xamante demuñu fa à travers le cinéma mu commencé ci Cowboy western Django Sartana am nga. ok mu ngi dem ci filmu gangster. Mm-hmm. dem ci filmu espionnage. Mm-hmm. dem ci doole sax loolu ci filmu guerre mais seen doole la ñu wane à travers le cinéma. terrorisme moom mooy jugee États-Unis dem Inde bi yëpp njëbi si. tu as compris dana wa nit boobu lañ doon créer moo nekk lucarne bu ñuy defee la promotion et la propagande de leur puissance. moo leen may tey mooy loolu. Mm-hmm. Inde indi film Inde. woy wa fecc ma les ak Modou col ga fii maire yi jamono boobu kenn ku ci nekk dépense bu ñu la jox nga denc ci paasu matinée pour seetaani ko hmm. piki nag cinéma Rock Seck ak yu kenn xamul ba fii la penc mi fi mu nekk hmm. cinéma Al Akbar Al Akbar liberté ainsi de suite ñu jóge ca chinois ak japonais. Hmm. indi arts martiaux. def ko ci CD yi gaa yëpp di seetaan. Hmm. Jet Li Jackie Chan. Hmm. Bruce Lee mu ngi fa woon des tas lañ jaay seen dëkk. léegi la plus grande puissance mondiale c' est moo gën a est ce que ñu jógee foofu léegi nag bi mu commencé ñëw nag ci Afrique. waa Nollywood ñëw. mooy Nigéria. après. ma grande famille Côte d'Ivoire. ma famille man j'ai joué ma grande famille bi mujj ñëw j'ai joué le rôle d'un commissaire yow mi ma laaj affaire ci bureau rek non mais j'étais agent de police j'étais commissaire. jàpp gars yi tëj ci kala bi <laughs> ok. mais léegi nag voilà léegi nag. suñ ko defoon buñ ko defoon école boobu. ñi ko ittewoo dinañ dem jàngi ko même boo jàngul film yi mun nañ ko def sax olof enregistré olof sous-titré ko. wala ñu duble voix bi en français ca dëkk yam jëm ak mais kon kenn ku ne di nga mën a jouer mais ñu jàngal la ko nga xam métier mi mais nga di ci fot tout man su ma xalaat foofu la nekk. foofu accord yéen boobu am de. waaw euh, Grand Laye est-il un coureur de jupons. non plutôt c' est les jupons qui me après. vous êtes polygame. non je n'ai qu'une seule épouse. Mm-hmm. plus ou moins, parce que j'avais divorcé d'une autre femme. Après, celle-là, on est, à, on euh, ans environ. Machallah. Oui, Mais am naa droit si ñaareel nag. bien sûr. À vos heures perdues, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos loisirs? déglu musique. jazz ak reggae. reggae system. man ba may déglu boobu maa natural mystique yàgg de. kon 31 décembre ak kii stade Amadou Barry 31 décembre. non ca. bàyyi naa dem ca yooyu. daan naa organiser ay concert ay festival mais jazz daan doon. avec l'appui de Michael Souma ñoom jamonoy Khalil Gueye ak yeneen avec les hôtels j'étais agent d'une agence de voyage qui organise des festivals de jazz héritage tour ok donc man maa doon secrétaire exécutif bi kii m'occupait de pas mal de bi accueil yi tout c'est noonu laa xamee ay ñoom baaba maa acteurs yu bari parce que dañ ko daan yàpp tu loolu daal moom euh, lu ko mooy maa ngi suma kër. vous aimez le ah, pas trop je un gourmet. le bon manger quoi. nest pas. Mm-hmm. waaw lu am sens am na yu bari yoo xam ne man du ma lekk kaani gars yi ñu sax yooyu. Mm-hmm. quand c'est trop épicé bokkuma damay ñaq fa ñaq bu metti. quand rien du tout. su ma yeewoo caméra wax ko wax ko wax ko li ngay rataxle ko. c'était un plaisir en tout cas. le dernier mot c'est eh, di di leen sant. di leen gërëm ci seet bi ngeen ma seet si. et eh, eh, ñu waxtaan de manière décontractée. loolu dafa neex quoi. kontaan ci yéen. Mm. seen émission baax na day tax nit ki mën a bàyyeeku. ña koy déglu lu bari lu ñu woon ci moom ñu xam ko. Mm-hmm. man nag nit ku simple laa ni ngeen may gise nii. Mm-hmm. déedéet meluma ne neen mm-hmm. te la ma leen di wax toujours mooy. star star boobu gars yi woote man gawuma ko. wóor na maam Cheikh Ibrahima Fall Sénégal gi benn star moo fi am star interplanétaire lañ koy wax mu Youssou Ndour. les vrais stars ñu ngi Hollywood bu fekkee on parle star du cinéma. dangay ngay euh, au festival de Cannes. star yaa ngi fa wala nga dem Hollywood. fii y a de très acteurs. mën naa ci bokk nag. waaye star googu ñu may bëgg a takkal. Mm. man gawuma ko moo tax dunduma ko. bu la neexee kon man sa star laa. waaw bu leen neexee. non balaa doon xam mu génn dox ci man kay su ma génnee moom damay nuyoo ba ma yàgg. waaw génnee du lay xoolee nag. waa damay gis dañuy am mbégte ñenn ñi dañuy taxaw ñenn ñi jaat nañu am photo ne ma bilaay yaa ñu yee bilaay li ngeen def ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi rafetlu ko mooy mag ñi am yar ak teggin dañuy wax ak ci noonu yenn jigéen ñi aussi ne si man de yee ngeen ma nga dugg taxi mu ne leen yii yéen jàng di yéen di jàngal nit ñi donk liggéey ba am na njariñ mm-hmm. mais taxul ma yëkkati sumay mbagg. damay sant yàlla ne. succès bi grand am bu fekkoon ba may am ñaar fukk ak juróom la ma ko jox kon yéen nañ samay mbiskit yàgg na xam nga loolu mooy leen kon dee naa bu yàgg naa damay fuuy mm-hmm. c'est vrai à 40 ans sax ko nit dinaa jaay jomba ñaaw mm-hmm. mais avec mon je comprends de choses mm-hmm. dama xam lu bari dama xam li ngi leen jox rek moo leen dëggal ba bu ñu am na ñoo xam ne mu mënuñu gérer seen émotion bu ñu gisee nit ñi dañ lay laxas di ay xale yu ndaw bul xam lu ma am ci ay euh, xale yoo xam ne ñii maay seen baay ñii maay seen maam. di fay seen jàng école di leen toppatoo di tat truc. waaw xale yi mënuñu sax wax le grand laay maam grand yaay. ay quatre ans cinq ans dañuy daw bu ñuy jooy tey damay génn ñëw xale bi daf ma sol man de mu ne ma da doon jooy ba mu la séenee rek lu wiccaxu rek daw ñëw je doon donne des may ma euh, su ma jëndee nag ma ñu ne ma bëgguma mante fraîche mint chocolat bëgg parce que boobu laa leen daan may ça fait plaisir yenn wu ko mhm. yàlla moom moo ko sant ma def ci la ma def pare naa ci keneen ku ma woowoon aussi ma joué beneen rôle bu am importance boo xam ne askan wi mën nañu gis seen bopp mhm. ma jox ko axam ba mu sëkk mhm. di sant yàlla nag moom ma may loolee di sant waa Sénégal ñi nga xam ne ni safoo nañ ma di ko rafetlu di leen delloo njukkal di leen sant bu baax sant bu amul àpp yéen itam mi ma may ba ma mën a jottali sama xibaar yi ñu ki des à travers votre rajo réew mi FM ci biir réew mi maa leen di sant bu baax di leen ñaanal gudd fan ak wér borom bi jàppale leen seen liggéey bi may leen ci ndam yokkal leen ci garaat bu baax bu ëllëg ngeen am seen rajo bopp ba am seen xalaatu bopp bu ngeen joxalante ak doomu aadama bi wuuteeg bii. ngeen nekk patron de presse comme Grand Laye. je vous remercie. donc euh, Grand Laye personnellement man dama koy remercier ci mag la mais oyof na day jël temps wax ak yow comme. koo xamante ni yéen a bokk époque merci beaucoup pour la disponibilité la gentillesse aussi yal la fi borom bi yàggal nga yàgg di ñu bégal j'ai une grande estime pour ce monsieur donc dañuy dem ba beneen samedi ñu toog fi ak beneen star waxtaan ak moom ce fut un plaisir on se retrouve donc la semaine prochaine très bon week chez vous